jërë ngeen jëf mbokk ñi seetaan Sénégal 7 TV Sénégal 7 point com mbégte ak contentement la ñu ànd ak yéen seen euh, laaj bés bi laaju bés bi nag dafa déplacé wu fii si diwaanu Sandaga xam ngeen lu jëm si wàllum politique 20 candidats yi nga xamante ni ñoom ñoo war a participer si élection présidentielle bu 25 février 2024 ana ban jàngat la ñuy def si 20 candidats yooyu bi ñu si noppee dinañ ñëw si ban campagne électorale la ñu nar a xaarandi waaye tamit euh, ban message la ñuy lancé si acteur politique bi maanaam Papa Diop ñu dem te ñëwaat. waaw man euh, li may wax ci 20 candidats yi. man euh, suñu réew mi man man man fàllu euh, réew mi man dafa maa xaw a yéem ndax euh, moment bii ñuy toll bi ñu nekk nii heure bii daaw ku la waxoon ni candidat yi bokk ci vingt yëpp dañu bokk ci élection Sénégal kenn du ko gëm ñoom ñëpp nag laa wax Amadou Ba Diomaye Faye ñoom ñëpp heure bii daaw ñu doon ñi doon ñi nga xam ne ñoom lañ doon waxtaanee pour yaakaare leen jox nañ réew mi. Euh, Ousmane Sonko benn ci moom ndax nit mënoo nekk ci réew nekk doomu réew mi di laaj réew mi comme ni ko Macky Sall laajee pour jot ko nga koy laaj pour jot ko ñu ne la yow bañ commencé ñun ne yow doo bokk te doo bokk jooju moo ko tokk ba tey bokkul ñun ban réew lañ ne est-ce loolu dëgg la ci réew mu aw yoon. tey ñu indi ñu ay candidats yoo xam ni kenn mësul yaakaar ci àdduna dinañ dinañ mës a toog bañ leen di tudd ci candidats yi muy vingt yëpp nag koo ci mën a tudd heure bii daaw kenn waxtaane lu yéeme ngi noonu ci réew moo xam ne réewu droit la ku nekk am sañ-sañu taxaw laaj sa baat na dama bëgg réew mi nañu xoolaat réew mi teg ci réew mi ci yoon te ñun sénégalais yëpp am ku bokk Pastef ba ku bokkul Pastef ñëpp laa bokk yemale réew mi non man man xam nga tax bëgguma wax ci waxi Karim ndax gis nga àddina looy def te xooloo la ca kanam tout le temps li ñëw nit ñi duñ ci mën a ànd ak yow ndax waa PDS boo ñu waxee rek te yàlla tax tey fu ñu toll ci politique bu ñu jugaatee ci politique yàlla ak Ousmane Sonko la ndax dañoo bokkoon coalition. boobu ñoom wàccoon nañ ba kenn kenn daawul waxtaane sax pedes ñu bokk coalition dem gañe bañ na cëpp ba nekk ba bañ demee assemblée nationale ñoom ñoo njëkk a génn ne ñoom du équipe euh, euh, kii bu mag lañ duñ ànd ak kenn parti bu mag lañ ñoom duñ am kenn ku ñu topp ci ginnaaw gis nga mbiru politique li ñu jàppee politique du politique naxtaan ay njuuj njaaj ay damay calculer ndax sa intérêt bopp te PDS loolu moo leen topp tey du ma ci bugguma ci woon wax ndax xam nga bugguma ci woon wax mooy nit ku nekk looy def sa ëllëg tey dina bëgg ku ko xeexal ñoom ba PDS bëgg nañ ku leen xeexal mais kenn du leen xeexal ndax kenn ba Macky Sall toogee ci réew mi ba léegi PDS amul benn lenn lu opposition bi di woote PDS nga gis leen ndax seen intérêt bopp tey nag xeex bi ñoom dinañ ci wéet ndax xam naa ni kenn du leen xeexal campagne électorale nga nar a xaar ci vingt candidats quand même ah campagne. waaw mais kam man li ma ciy xaar moo di nit ku tu nekk moom béy woy na mbuus allah kulli dañuy dem. ah toit bi lañ fi nekkal quoi waaw te instant ñun tamit dañ see sonn ci loolu quoi daf ne dëkk bi gis ngeen nu mel. yaa ah neexul nit ñaa ngi am ay xam ay problème koo gis fii dox rek am na problème mais da koy nëbb ak ngorom loolu la quoi. campagne électorale bu vingt candidats noo ko nar a ah mu ko nar a gisee xanaa teg nañ ko si yoon quoi et tamit dara na neex et tamit koo xam ne tamit kuñ gañee tamit nga fair play xam ne affaire yi ñoo ko bokk ngeen bokk soo mënul liggéey na soo mënul maandu nga jàpp sa ñaambur quoi bañ a dugg si sa yoon nekkul. waaw instant bi ñu doon ñu kaas nañ bàyyi nañ bàyyi Ousmane Diomaye Faye Ousmane Diomaye Faye. bu Ousmane waaw Ousmane Diomaye Faye ak Bassirou Diomaye Faye ñoom ñëpp dañ leen bàyyi mais tamit nañ ko teg si yoon quoi mais nekkoon incha allah te dina génn saa incha allah incha allah dina génn et puis tamit campagne yi dina jaar yoon du am benn problème te salaam jàmm Sénégal jàmm rek moo fi sax moo fi sax quoi. yi war a bokk bi. waaw lu ma leen lancé mooy ku ne na fonk kàddoom lu mu ci wax bu mu ci dellu ginnaaw comprendre lu mu wax du mu ci dellu ginnaaw li nga ne gëm da ngaa def nii bu ñu ci dellu ginnaaw askan bi mooy jugé quoi nga xam ñu nekk si dëgg aw ñu nekkul si dëgg waa l' essentiel maa si ginnaaw Amadou Ba incha allah. dina bëriwul sans départ ci li déposé woon muy 93 bu demee ba seeg ko mu def 20 20 candidats kon pour man bëriwul quoi. non 2019 li taxoon 5 candidats yam boo Macky Sall dafa bëggoon a gagné premier tour moo taxoon mu segg def 5 candidats mais comme lii neen day bëgg ku nekk tibb looloo tax 20 candidats yi nii mu 20 looloo ko waral quoi. ñaari candidat yi euh, Ousmane Sonko bokk si Karim Wade tamit bokk si loolu noo ko gisee. non ka Sonko moom bokk na li booy naan la Sonko mooy Jomaay Jomaay mooy Sonko kon dafa naa ne Jomaay sax mooy gën a diis si pour Sonko ndax li doon wareel Sonko ñu ci bëri xam nga am nañoo ak Sonko mais mën nañoo def ak Jomaay kon bu Sonko doon gagné cinquante cinq pour cent Jomaay mën na gagné soixante pour cent bala quatre pour cent mën na ko gagné man loolu laa gis man am naa ci yaakaar bu baax amu ma ci dara lu may tiit. campagne ngeen a xaar campagne électorale bu neex wala ban campagne électorale. non si campagne bu neex ndax suñ mbër mi mi ngi ci kaso bi. waaw vingt candidats yi ni ma ko gisee bari na de bon mais gis naa ne daal ñaari candidat ñoo ci am ñoo ci xaw a am doole quoi. waaw mooy candidat nguur gi ak bu bu kii bi Ba ak Bassirou Diomaye ñaari candidat yooyu daal jàpp naa ne ñoo xaw a am doole quoi mais sinon yeneen yi peut-être. outsider peut-être ku mel ni comme kii nu mu tudd Déthié Fall waaw xaw na am doole tuuti quoi mais à part ça moom gisuma candidat yu kii quoi yu crédible quoi comme ñeneen Ousmane Sonko tamit bokk si waaw pour man bokk ñàkk bokk Karim Wade moom day arrangé waa Pastef quoi ndax électorat wu ak ak ak bu Pastef xaw na nu jege tuuti quoi kon Karim Wade bu bokkul moom dina xaw a arrangé tuuti waa Pastef et dina dina dina blessé waa nguur gi aussi mel ni Amadou Ba waaw. mais ngay xaar si côté campagne électorale ndax jàpp nga ne campagne bi dina jaar yoon ak candidat yi nañu bare ak non campagne bi de pour man dina xaw dina xaw a compliqué quoi si ñeneen ñi. bon vingt candidats yi lu mu ko gisee moom dafa bëri torop waaw bëri na torop moom vingt candidats yi bëri na torop lu ma si gën a intéressé mooy Sonko bi nii Sonko ak Jomaay Faye waaye buñ ko xoolee si cadre Sonko mooy Jomaay benn la rek ñun moom amuñu benn tension ñun moom. te li ko Sonko ah. non métti wu ñu de ndax Sonko mooy Jomaay ndax po Sonko projet la wax projet te projet bu projet bi day wëy du benn benn benn nit kese de projet ay nit nit la treize million treize millions euh, treize millions nit la. noonu la. waaw. noonu nar a gisee campagne électorale bi nag noo ko nar a gisee campagne ak lan xaar si campagne électorale bu vingt candidats. campagne moom mu ko gisee moom dina am ñu sonn trop. par rapport ak waa Pastef moom boo mën nañu bañ am jafe-jafe kan ci campagne quoi mais ku mel ni yeneen candidats yi moom pour ñu campagne normal dina jafe quoi ndax gis nañ ne sorti mag Sall sax bu ko defee gars yi dañ koy. yooxu di ko laaj sonko sonko kon pour ñu campagne moom dina dina xaw a métti trop si ñoom quoi. yaa ngi sa à yeneen gars yi seen. sonkorisé yeneen yi pour ñoom ñu campagne tranquille par rapport ak Amadou Ba peut-être mën na campagne bon comme ni mu ko bëggee mais du yomb quoi waaw ndax xale yi moom ñu ngi ci mbedd mi te seen naxar peut-être foofu rek lañ ko mën a fajee ak comme seen candidat bi ñu kale quoi dina xaw a compliqué trop si ñoom quant à Bassirou Diomaye moom pour mu campagne moom pour man. bon bu ñu ko génne woon mu campagne moo gën mais bu desee si kaso gi tamit ñàkk campagne aussi ñàkkul ñu ko campagne ndax patriote yi moom campagne mën nañ ko trop sa xarañ nañ ci quoi waaw. lan ngay wax candidat waaw mais candidat nar a participer comme saa ñi jiital soxlay askan bi rek. waaw comme réew mi gis nañ fu mu toll li tax gars yi di contre système bi ñu bañ ci nekk waaw kon ñun sunu kandidaa mu mel ni ku mel ni Bassirou Diomaye fay moom. am nañ ci moom yaakaar quoi parce que jàpp nañ ne daal Bassirou moom mooy sonkoo quoi waaw ñu ngi koy xaar bu baax a baax ci terrain bi aussi di xaar waa Pastef. patron am yaa naa moo jiite Benno Bokk Yaakaar Amadou Ba kon ñoom xamante na te ñii dañoo yom programme mooy Pastef programme lañ yor bind nañ livre bind livre bind livre kon seen programme du li ñuy joxe wala lu ñuy wax maanaam tey discours Sonko rek moom ngay dégluwaat xam programme mais du lu ñuy waxaat ñu li ñu Sonko war a wax yow wax nañu ko kon mu nekk ci biir ak mu nekk ci biti yëpp benn la ci ñun. Euh, candidat yi nga xam ñoo nar dem si élection yi. non maa ñoom ñëpp benn lan ñoo bokk ndey ñoo bokk baay te ñoo xam ne coup bi nag moom benn lay doon benn coup mooy premier tour mais deuxième tour moom du waaw noonu non tour du am. premier tour waaw Diomaye dafa leer. gisoo patriote yi ni ñuy xëyee di ree man tey dama xëy sax patriote yi ñoo ma jëlal ndékki ndax kontaan bilaay non si baax na campagne bi dina am ñu sonn de côté état bi den sonn trop nga jàpp na ñoom dinañ sonn mooy sénégalais dañoo dem ba ba bët wan leen ginnaaw quoi Sénégal dañoo dem ba wan leen ginnaaw jamono yi boo xoolee Sénégal lu mel ni ak méti métti di ak kii kii ñoom lijjanti wuñu moo tax dina métti trop si côté bu buñ demee si côté Pastef campagne moom yaakaar naa ne Pastef mooy gagnant bi quoi waaw fa dëgg yàlla mooy doon gagnant bi ah non lu mel rek nu mu commencé ba léegi rek moo lay ja moo lay xamal ne la gañaasi si ñoom Pastef lay doon waaw. lan candidat yi lu ma suñ côté candidat mooy Pastef may woo bépp militant di woo ñëpp sénégalais yëpp bépp bu bokk si Pastef rek ak ku bokkul ñëpp ñëpp maale leen di woo allah ñëpp jàpp dooleendoo bërëndoo lépp incha allah. vingt candidats yi c'est logique mais Karim Wade c'est normal amul de nationalité la te bëgg nañ fi ne réew mi ku koy diriger ëllëg. mu benn nationalité bañ aussi dooyi mais tamit ñun suñu réew du ñu gën a bëgg ñoom soo demee seen dëkk am nañ fa fulaak xam ne mënoo fa def loo xam ne bëgguñu ko waaw c'est la quoi ok. c'est logique c'est incha allah tamit Amadou Ba dina falu incha allah te coupe bi dina ñëw incha allah Ba laa. Karim Wade ak Ousmane Sonko tamit bokkuñ ci loolu noo ko gisee. waaw mais c' est mais c' est normal euh, euh, que Ousmane moom dafa nekk en en justice affaire am leeragul quoi mais bu soobee ku mu jiite tamit ñun dañu di ànd ak moom aussi si loolu aussi quoi man forma kenn quoi mais tamit dëgg su jotee nit di ko war a wax quoi te yàlla tax xool ci yàlla quoi waaw Karim moom double nationalité la waaw te soo seetloo ñoom ñëpp suñu ñu am douze nationalité yi lu si ëpp seen waar waa waa waa. man sama xel mu gàtt loolu la ma may ala kulli àlli dañuy dem élection mooy ku ci nekk nag na ngay jël ses responsabilités bopp ñun ñun boog ñun waa Pastef ñëpp xam nañu ci àddina amul kenn kenn koo xam ni di nga génn ci mbedd ñu ne la waa Pastef ñoo ngi koy sànni xeer wala ñu ngi koy nak ñu ngi koy def nak su dul noonu. nañ ngalla nag nañ ñu bàyyi ñu def suñu campagne yu bopp ñoom ñu nekk suñ campagne yu ku nekk nekk sa campagne yu bopp jàmm am ci réew mi kii gañe gañe man loolu rek laay lancé ñun duñu yàqal duñ tooñ duñ sànni kenn xeer duñu yuux kenn mais campagne bi ku ci nekk awal sa yoonu bopp dem ak sa bopp sànni xeer xuloo yooyu yëpp mën a jeex ku ci nekk ku gañe ñoo xam ne suñu borom kii la dénk réew mi ndax réew nag suñu borom rek moo koy joxe keneen du ko joxe nañ ko def ci jàmm ci fair play man nag xam lan moo ma jaaxal mooy veille man mooy sama problème daa bari trop ndax li tax mu bari man man mënumaa comprendre ay ñoo xam ne mënuñoo gagné seen tey bu ñu doon def élection ñu teg ko seen biir néeg billaahi ñoo seen jabar tey duñ dem am na ñoo xam man xaw ma leen man man man fàllu man mënu ma leen wax nii lañ mel te suñuy candidat ñoo war a jiite suñu réew man xaw ma man sénégalais laa xaw ma ñooñu nuñ mel xaw ma leen ay euh, nu mu tuddati euh, euh, soxna si waaw man tey bu ma xaw ma Rose Wardini man xaw ma nu mel dégg rek laa ci am xaw ma am na keneen koo xam man damay tugg dégg ay tur dama naa ñi ñan lañ mais nan ngay joxe si réew mi koo xamul moom loolu c'est impossible ñi nga xam ne nit ñi xam nañ leen yaakaar leen ñu jox réew mi ñooñu bokkuñ ci bokkuñ ci élection yi léegi ngeen bëgg ñun suñu réew ñu jox ko ñoo xam ne ñun xamuñ leen mais loolu mënul nekk. loolu mënu nekk am na réew réew dañ koy teg ci yoon maanaam réew mi ñëpp ko bokk mais élection bi kenn mën naa laa mën nañ ko def ci jàmm de mais élection bi kenn xamul élection lan la ndax koy tànn kan ngay tànn xam nga koy tànn ñun moom am nañ kon tànn ñun ndax ñun dañoo am benn leader boo xam ne lu mu wax loolu lañ wax muy Ousmane Sonko tey fu mu joxoñ foofu lañ joxoñ te jomay Faye la ñuy joxoñ te Diomaye Faye incha allahu rabi moom la ñuy àndal moom la ñuy xeexal ba kër muy jël génn ngeen koy waaj non ñun jomaay des ci kaso bi mooy gën a garaaw mu génn ñoom bis buñ dof dofloo ba bàyyi jomaay ci kaso bii muy gën a métti ci ñoom jomaay génn defi campagne soo boobu ñu bàyyi ko mu génn mooy gën a yomb ci ñoom man loolu laa am lu ma leen di wax jomaay su fekkee bëgg nañ dañ ko génne mooy ëpp jàmm ci ñoom buñ ko bàyyee ci kaso bii barki Seydina Mohamed mooy gën a garaaw waaw loolu laa gis ndaxte maa ngi leen di jaajëfal. mu nekkoon li ñu ni loon fii si diwaanu euh, Sandaga euh, laaj bés bi euh, comme ni ngeen ko déggee si ñenn ci askan bi nga xamante ni yëkkati nañ seen kàddu joxe seen xalaat donc li la ñu ni loon ma gërëm Papa Diop si caméra bi di leen jox rendez-vous ba beneen yoon si laaj bi ak si yeneen diwaan si diwaanu Dakar jaa ngeen jëf.